Assalamualaikum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp ñu topp sama ginnaaw maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay parce que nu njaaram bépp ñu ngi leen jox seen wàccuwaay di leen remercier ci teewaay bi ak li leen tax a jóg ak li nga xam ne moo tax ngeen ñëw fi li tax ñu jóg na mooy président Macky Sall la waxal di wax benn kàddu boo xam ne di ko lancé président Macky Sall ne ko ñun amuñu kudut amuñu furul njaareem te gëmuñu furul njaareem te njaareem lañ bëgg njaareem lañ xam te njaareem moo ñu intéressé ñu gis benn jeune boo xam ne ni benn nit ku dynamique boo xam ne ni muy Pape Modou Fall deux exemple la muy nit koo xam ne nii wasala ñun dañuy gis ne jooyuñu ministre sax nam Pape Modou Fall mu gis ñu demande ma nama ñoo ma wax nu ma waxal leen ko muy sëriñ si sëriñu daara ji maara yi jeunesse bi jigéen ñi maire yi paa yi ñoo ne ma ma joytu leen seen joytu moo tax président Macky Sall ma dégg leen wax waa njaaram ñooy wax man waxuma samay kàddu samay kàddu waxut waa njaaram ñoo ne loo leen dolli loo dolli si Pape Modou Fall doyul parce que la gis ko lañ gis koo xam ne directeur boo xam ne comme ministre directeur boo xam ne taxaw na ñëpp si njaareem muy daara ji muy sëriñ si muy femme yi muy jeunesse beeg ñëpp koo wax ñu la ñu Pape Modou la ñu jooy bëgg directeur Pape bëgg ñu yokkal ñu ko bu yokk koo xam ne nii amul fu muy yem. amul fu muy yem président Macky Sall bu dee liggéey moo la tax a jóg bu dee dëkk bi moo la tax a jóg bu dee Sénégal moo la tax a jóg bu dee liggéeykat moom nga bëgg. xamub soo bëggee leneen na mais bëggee ngaa bëgg liggéeykat dëgg nga jàppale Pape Modou Fall yokkal ñu ko waa Njaareem ñoo soxla loolu ñun ñoo gis ne buñ suñ bët xonkee Pape Modou Fall la ñuy gis femmes yi ñoo ma ko wax sëriñu daara yi ñoo ma ko wax jeunesse bi ñoo ma ko wax kon li ma wax loom laa lay yeggaleel bu dee dëkk bi ñoru la nga wax ñu li la ñor dëgg te ñor ñu mooy Pape Modou la ñu ko yokkal doyul parce que suñ biyaay yi suñ papa yi ñëpp a ngi jooy parce que Pape dafa am njariñ njaarim boo ko woowee jot ko boo ko joindre bu lu ko wax loo xam ne lii lu jëm si njaarim la balaa ngay coupé mu def ko kon direct directeur gàcce ngalaama yow sa jaan wàcc na li la pa li la président Macky fal mais Macky Sall yow bëgg nga yokkal ñu Pape Modou Fall ba nga xam ne bu subaa suñu yaay suñ jeunesse ñëpp jot seen bopp yëg seen bopp si njaarim ñooy wax ak yow waa njaaram ñooy wax yow. ñu jubal pa Modou Fall parce que ñun xamu woon Macky Sall buñu ñu ba xam Macky Sall pa Modou Fall moñu convaincre moñu indi dajale ñu xamal ñu li président yi liggéey mo tax ñu and ak directeur d'emploi parce que li tax ñu and ak président Macky Sall pa Modou Fall mo tax directeur emploi mo tax ñu and ak moom mais ñun xamu woon président mosuñu ko jàppale pa Modou mo tax ñu jàppale président Macky Sall. njaaram gep ñone pa Pape Modou dañu bëgg ñu ko parce que le directeur bu nuru ministre la kon nous ministre Nous koy dog Sénégal nous koy dog am njaareem monde dem si pas Modou dem ñu ne pas merci beaucoup.